réew seen ministre terre des affaires étrangères di naan Sénégal assemblée nationale un député euh, c'est dingue ça écorne l'image et la justice traîne toujours les pieds par rapport à malgré man, ça levé nañ seen immunité parlementaire mm-hmm. te boo demee man dama ni ñoom kese ce n'est que la face visible de l'iceberg ñoom parce que ñoom tëbuñu tëb rek nekk ci kii am na fu mu jóge ak ba mu yegg si si ñoom loolu donc Euh, benn gangrène la bu nekk suñu état. Mm-hmm. dañ ko war a seppi dindi teg fee man ñooñu mën naa wax ci seen kaa parce que du fait divers suñu xaalis lañ leen di fay ñuy dil suñu ay euh, passeport diplomatique mais kële. Euh, kilifa ak keneen waaye yoon naa maa gisante ne yéenewuma leen li yéenewuma kenn kaso kenn kenn kaso mais tey ji ñoom ñu ngi koy dundee comme injustice comme inéquité mhm. bi ma doon dénoncer léegi ñun dañu dund ci inéquité de 2012 à 2016 ñun deux ñun ñun cest dañ doon wax ci plateau. ñu jàpp mais c'est quand même rigolo le ah, fait que Y'en a marre dem bay euh, ceci euh, PDS parce que ñu. parce que euh, voilà mais c'est là c'est pas c'est pas. c'est drôle parce que je, je euh, voilà, ils nous ont beaucoup. Mais, mais c'est la vie d'une construction d'une nation. Moi, je fais partie de ceux qui disent. Mais ils, ils, ils, ils sont pour, euh, pour, pour la démocratie, euh, Nafi, il faut aussi nous n'angoulez lolo. Est-ce que n'est que lolo motax qui qui les faut font tolni. Le président de la République Macky Sall beaucoup ne aussi janté aussi. Non non, mais dégolément, moi, man pour la marche d'une mhm. d'une nation. Euh, pour loo xamante ni day defar réew je suis au dessus de ces contingences man bokkoon naa. ci ñi leen vous euh, euh, ñi leen recevoir euh, mm-hmm. quand ils sont venus. Mm-hmm. Euh, et et moi j'ai trouvé leur discours qui qu'il était un discours boo xamante ni il tentait d'unifier les forces vives man ne mm-hmm. leen à la bonne heure. que vous compreniez que aujourd'hui bu ñu àndul juboo ci dara. ñun ñëpp ñuy opposition ñuy forces vives yi Macky Sall dina def lu ko neex. fii ba l'an deux mille cinq gisoo leen ñoom bu ñuy wax sax ay waxu deux mille trente cinq la ñuy wax. Mhm. dina def lu ko neex foog ñu ànd les forces vives c'est-à-dire man ma gëm sama Ablaye Wade gëm ni c'est le meilleur keneen gëm li mu gëm mais ñu ànd ci euh, yenn principe yi. Mhm. je suis contente qu'ils comprennent je suis triste pour ku ñu jàpp en prison mais je suis contente qu'ils se rendent compte à quel point les injustices sont là et qu'ils viennent voir partis comme le PDS qu'ils ont combattu et qu'ils comprennent que c'est ensemble, c'est ensemble. Raison, à raison, euh, Assam, ça, ça c'est relatif. On, je ne peux pas revenir sur toujours des... C'est relatif. J'ai mhm. défendu partout que moi, j'ai trouvé ça injuste, profondément injuste, mon du politique. Mhm. c'est mon avis. Mais ce que je veux dire, qu'ils le comprennent aujourd'hui et que nous aussi, euh, nous ne sommes pas une euh, coalition euh, politique, nous sommes une coalition électorale. dañ leen wax ni rek ku ne si parti wam dina dem waxtaan pour ñu xool nan la ñuy jàppee ci combat bi ndax dañuy ñëw ndax plateforme la ñuy def wala leneen mais wàllu en question mënul joxe kaddu mhm. parce que duñu coalition politique coalition juste électorale lañu et ils l'ont très bien compris et leur discours moi ça m'a fait plaisir qu'ils comprennent qu'aujourd'hui au-delà du du passé mhm. euh, à un moment je vous dis euh, dans l'histoire euh, des, de des peuples toll nañ foo xamante ni chaque fois mhm. Ablaye Wade toog na ak Abdou Diouf euh, Senghor toog na ak Senghor mhm. Senghor mujj naa toog ak Mamadou Dia mhm. euh, Cheikh Anta Diop toog na et cetera et cetera donc dafay toll ci réew foo xamante ni force vive yëpp dañu war a mun a déggoo autour de l'essentiel ils ont vu ils le vivent dans leur chair euh, des choses inéquitables jël euh, Guy Marius Sagna dégg naa dañ ko affecté à Kédougou. À Kédougou. Mais man, je dis toujours, arrêtez de dire c'est une sanction. Ce sera pour lui. Ils ont fait la plus grosse erreur de leur vie. D'amener. Mais Guy Marius D'amener Guy, Guy, Marius à Kédougou. À Kédougou. Euh, Demandez-moi pourquoi. Euh, euh, qui dit euh, Télico aussi à Tambacounda aussi. Ils ont fait leur plus. Télico, Degnanium, Cherbar, Doli de Kouar. Mhm. Euh, man, je veux déjà qu'on en, euh, enlève cette idée que affectation, nous. ñooñu c'est des sénégalais ci réew mi la ñu bokk. tàggeewu Marissa Niass sax yàgg naa may yeggali mm-hmm. Téliko à wala feneen. c'est vrai que tout le monde le vit comme une sanction mais on doit fexe en tout cas prochain président bi liggéey. Mm-hmm. région yi. Mm-hmm. décentralisation bi à telle enseigne que ku ñu sànni fu mu mënti doon doo sentir ni dañ la punir. Guy Marius Sagna à Kédougou. c'est la plus grosse erreur du pouvoir. Ah ah. kenn ku regorge de plus de trente trente pour cent trente cinq pour cent de nos ressources. Mm-hmm. et Sabadola est là. Ah, ah, ah. les gens pensent qu'il y a une réelle euh, spolié spoliation. Mm-hmm. Euh, de nos ressources. on dit qu'il y des deals on dit qu'il y des bu fay génn sénégalais yi duñ ko gis ko yóbbu fa Guy Marius Sagna dina feeñ je l'espère <laughs> dina fa organiser wu <laughs> dina déglu nit ñi. wallahi c'est leur plus grosse erreur. Mhm. parce mhm. que moom boo koy rey sax dana dem au front. ñu dem xool gu bee nga xam ni ñëpp xam nañ ni dilu état bi lépp fa am na ñu bëri sax njoxte ne loolu moo tax euh, nanguwuñ ki nga xam ne mooy Guirassy euh, liste bi jàll foofu le euh, ci Kédougou. Guirassy je pense qu'il a été il a été maire. Et, euh, oui il a il est, il est maire de Kédougou. il est maire de ah, il est actuellement ouais, maire il est maire de Kédougou il ah. est député. Euh, mais ñoom dañu def daal ñoom daal ñu ngi noonu ñun on a beaucoup de listes qui sont pas passées ah. <laughs> wàllu am nañ quelques listes yoo xamante ni mais comme je vous ai donné l'exemple. Mm -hmm. de trucs yu doy waar. Mm-hmm. mais en tout cas. Euh, un Guy Marius Sagna parce que c'est la différence entre Guirassy mmh. et Guy Marius Sagna c'est les postures ouais. Guy Marius est un activiste ouais. foog loolu itam presse bi di def attention et un homme de terrain aussi hein? activiste la <laughs> activiste du taxaw rek si sa L'activisme, c'est quoi ah ouais. C'est pas ce que je vois sur les réseaux sociaux. Insulter, inventer des ah ouais. histoires, raconter du n'importe quoi sur Macky Sall, sur les enfants de Macky Sall. C'est pas ça l'activisme. Mm. Activiste, xam nga mooy ñaan par exemple ñi def. Euh, le le le truc le printemps sahélien. Mhm. le printemps arabe. ñi nekkoon ci ginnaaw te gisoo leen leen. Mhm. ñoo ñooy activistes yi ñu leen doon yóbbu ay Pérou ay Lima di leen financer. Mhm. ñoo ñooy activiste taxaw ci ginnaaw du yow yaa koy gis du man maa koy maa koy gis. <coughs> Euh, Guy Marius activiste la. du politicien donc tey euh, euh, Guirassy li Guy Marius Sagna mën a fexe dénoncer ko. Euh, kii politicien la c'est un homme politique. Mm-hmm. un ancien ministre un maire bokkuñu nu ñu mën a doxee man am na yoo xamante ne toujours dama naan sax man nañ ma wàcce PDS ba ma ma nekk militant simple parce que yi may bëgg dénoncer ak ah, ni ma koy bëgg dénoncer. Mm-hmm. Euh, du du ça sied pas avec une posture. Euh, euh, euh, politique que tu as dans une organisation parce que boo ko waxee day day day day day laal sa parti. Mm-hmm. est-ce que est-ce que vous voyez ce non, que je veux dire ça, on va dire que c'est le PDS qui l'a dit on va penser que c'est le président Wade ou c'est vous voyez. Mm -hmm. alors que quand tu es activiste tu es en généralement beaucoup plus libre pour dire ce que tu veux, comme tu le veux, comme tu le ressens. tout à fait juste rappeler aux internautes euh, qui nous suivent un peu partout suñu page euh, Facebook ak euh, si YouTube bi je suis avec Nafi Diallo bu coalition wàllu askan bi aussi bu parti démocratique sénégalais Nafi ñu xuus ba tey si waxtaan bi waxtaan par rapport ak. restauration poste premier ministre bi loi bi voté nañ ko euh, de vendredi bi passé ce vendredi di à l'Assemblée nationale 24 articles de la constitution fu mu toll ni mun nañu wax ne euh, révisé war nañ ko mu mel ni comme finalement euh, l'avenir a donné raison ñenn député yi nga xam ne teewaloon nañ fa parti démocratique sénégalais ñëwuma woon sa plateau invité woo ma ci woon yow invité woon nga ma ci sa plateau ci loolu révision <laughs> poste premier ministre bi. c'est vrai ma wax ba kii ñu ne fast track. <laughs> lii de waxuma la low track rek. nee nañ lu mu nekk Union africaine. mais le président Macky Sall s'est justifié nee bu xasee ba nekk Union africaine dootul. Euh, c'est la mën a di. Euh. <laughs> c'est la première fois qu'il dirige une instance internationale. xam nga bu ñu nekkee nag ñoom dañu mën graawal quoi il est le président de l'Union africaine. c'est tournant c'est un poste boo xamante ni tous les présidents de l'Union africaine dañ koy am. Hmm. poste buy tourné la. Hmm. du dafa def lu extraordinaire <laughs> pour mu nekk ko c'était son tour. mais aussi il faut que ce n'est rien d'autre que <laughs> les commissions qui sont dans l'Union africaine ñooy liggéey est-ce que vous comprenez commission les différentes commissions de différentes régions. Mm-hmm. de de de de l'Afrique ñoom ñooy liggéey en général. moom day présider donc c'est-à-dire c'est pas quelque chose un dossier qui va être là à gérer <laughs> tous les jours jusqu'à 4 heures du matin c'est faux. mais Sénégalais par la communication ils font de pas vrai. par rapport à, la communication bu muy justifier li nga xam ne moo tax muy restaurer euh, <laughs> poste premier ministre aussi est-ce que aussi un président en exercice aussi euh, si dëkk boo xam ne mën nañu wax ne tension sociale yëpp a ngi fi euh, dire que du ma mën a ti nekk